Seydina Fall Bougazelli doomu Géejawaay war a jàkkaarloog procureur niki tey gannaaw bañ ko tuumaalee lii di trafic de faux billets ci lu toll ci 32 milliards loolu waraloon sax ba mu delloon ndombol tànkam fële ca pencam ndawu réew mi lu xëy tàllal suñu micro askan wi yeewoo ci Géejawaay ngir taataan seen xalaat. xaw ma sax kuy Bougazelli xaw ma ndax Géejawaay la dëkk saxam déet wax dëgg xaw ma ko ci tele bi laa ko gisee rek ñuy wax waaye su fekkee moom yoon la li yoon wax nañ ko def rek ci yoon ñoom ñoo gën a xam. waaw ndax ñu ngi man maa ngi seetaan télé bis bu ne ñuy jàpp naan faux billet jàpp nañ ci diw jàpp nañ ci diw ni ñuy def nag ñuy taxawaalu ci mbedd mi ak doomi jaamur yi ñuy tëj ci mbedd mi portable buñ ko sàccee wala dara ñu yóbbu la jaarale la ci yoon moom it nañ ko jaarale ci yoon rek nit la comme nit ñi rek man xaw ma kuy kooku waaye nit la comme nit ñi rek li yoon wax rek nañ ko ci def na yoon def liggéeyam. waaw affaire Bougazelli bi nekk na mbir moo xam ne mbir mu kéemaan la de nekk na loo xamante ni ah bi nekk dëkk boo xam yoon la. te yoon bu xasee ba am rek doomu aadama benn warul fayal boppam te am nañ ay ñoo xam ne nii ñoo ci wàllu suñu kaaraange réew te am na loo xam ne bu duggee ci dëkk rek da koy yàq rawatina Macky Sall li mu doon wax naan naan xaw ma xaalis bu baaxul xaalis bu baaxul moo tax réew mu dem mu téye loolu koo xam ne fa bokk ci ñoom nag su defee loolu lu ci yoon wax nañ ko def rek loolu mooy mooy mooy l'essentiel bi quoi. gendarmerie bu ñu nee boo ko rek am ay preuve ndax ñoom ñoo yor mbirum recherche réew mi. ñoo ngi koy saytu suñ demee ba découvrir loolu ba saytu ko ci moom ba gis ko ci moom rek kooku amul leneen lañ koy def li yoon wax rek li yoon wax kaay mooy mooy solution bi quoi li yoon wax rek. ah ñun na fekk mu ànd ak waa Guèye ci dëgg rek ñun ci dëgg la ñuy dox waaw ndax bu nekku ci dëgg rek ñun li yoon wax daal na ko na ko def bu fekkee liñ koy tuumaal ci moom am na ah nga xam ñoom ñoo gendarmerie ñoo ko jàppal seen bopp ah nañ ci def li yoon wax daal waaw ñun waa Guèye loolu lañ ndax duñu ànd ak kenn ci ko xam ne. naka su dul noonu la ndax ñun ku ñuy ànd dëgg moo tax ñuy ànd ak yow suñ mënu ànd ak yow ci dëgg hmm, ñu xam ni ñuy def ak yow comme que loolu dem na xam ne nag yoon ñoo découvrir ñuy wàllu gendarmerie ci loolu ci moom hmm, kon nañ ci def lu ci yoon wax rek daal. yoon def liggéeyam rek ndax Sénégal moom boo fi nekk di def loo xam ne rafetul yoon war naa mën a def liggéeyam waaw loolu daal laa ci xalaat. ah mën de dëgg yàlla man damaa dégg waaye xaw ma woon fii la dëkk géej waaye rafetul moom bu dee moo ko def oh yàlla rek a xam de. waaye man xaw ma ci dara nag waaw waaye yoon daa bu dee lu jaaduwul yoon war na def liggéeyam bu dee luñ ko tuumaalit yoon war naa mën a def liggéeyam ba mu génn ci du dëkk kay. lu ëpp ci ñoom di wax ni na yoon def liggéeyam ñenn ci ñoom dem bay wax ni kii di Bougazelli yi daf leen a teg gàcce. xanaa di ko naqarlu rek di ko naqarlu muy gàcce ci ñun ndax ku toll ni Bougazelli am màndaa yi mu am am li mu am macha allah baax na lool. waaye fut na lu bare bare bare yàq lu bare bare bare ci géejawaay gi yàqal nañu ko ci APR yàqal nañu ko ci communauté bi waaw te loolu nag warul waaw def na lu ñaaw. yoon dafa war a def li nga xam ne lii mooy yoon parce que bu ko deful keneen def ko keneen def ko keneen a nga ci yëfam di xaar yëfu Bougazelli lii bu awayee yoon mu aw mu mu bàyyi bu awul yoon mu daal di def loola. waaw kon nag nañ ñu dimbale ngir yàlla ak yonent bi ñu def awale ko yoon dégg nga pour képp ku ko defati ñu sanctionné la. loo loolu mooy loolu mooy yoon waaye buñ ko sanctionné wu bu ëllëgee bu ko keneen defee day indi coow dong nañu sanctionné sanction mooy yoon parce que flagrant délit dégg naa lañ ko jàpp. kàddu gi may tëjee daal mooy nit ñi nañu maandu ku nekk na nga doylu ca la la yàlla jox yàlla mënu laa jox loo xam ne lii amuloo ko mënu ko la mu mën la lay jox. yow jaam nga dangay ngay sàkku ñaan mu may la lam la may nga yem ca nit dafay gore. géejawaay jóge ci coowal pétrole ci faux mu mel ni lépp fii lay xewee